lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko asalaamualeykum wa mbokk yi ñun ñi fi nii day sunu xol neexul tamit képp ku yëngu ci alquraanul karim tey sa xol naqari na waaye ñu ànd ak muñ tey ñaan yàlla nag képp koo xam ne partagé nga vidéo bii lu toll ni li ñuy jàng alquranul karim na xaraf ya toll ci àdduna lu toll noonu yal na ko yàlla borom bi tabaraka wa taala tollalee say mbir ga waaye yow mi partagé vidéo bi maa ngi lay ñaanal bépp feebar bu nekk ci yow yal na ko yàlla dindi maa ngi lay ñaanal su fekkente ne dafa am ay kayit yooyu lijjanti yal ko yàlla matal maa ngi lay ñaanal su fekkente ne da toog di xalaat ay mbir yoo xam ne da nga koy ragal yàlla bu mu yegg ci si yow maa ngi lay ñaanal yow mi partagé vidéo bi lépp loo bëgg ci àdduna yàlla borom bi tabaraka wa taala xam na ko mën na ko yàlla na la ko defal mbokk mi lan moo tax ñu toog fii tey dafa am suñu benn jigéen bu baax boo xam ne dafa ñëw rek boole boppam ci waa daara waaye du liggéeyal alquran liggéey ba rëy na ba toll ni képp koy dégg tey wala ñu ëpp ci ñi ngay dégg tey ñu leen di ciow ci rew mi ci alquran ba xam len ndaw soosu mo tax tay ñu xam len ngir lan ngir jaarale ko ci way yu xarañ yi ngir ñepp xam kenn ku ci nek fa nga tok di liggeel alquran te rew mi war la xam commencé ko ci Cheikh amadou Fouti ni siis nga xam ne tay ku ko xam dama wax ne ndaw soosu tay mo tax nga xam waye jaar ci ki nga xamantene bi moy senegal muy sunu sëriñ ba Cheikh Hadi Touré ca Fass Touré yaakaar naa tey bu ñuy dégg ab njàngam muy tasaaroo ci monde entier bi yëpp ba nga xam ne fi mu ne waa bitim réew sax dañ koy xëccoog nee naa ndaw soosu mooy ki nga xam ne moo njëkk a yittewoo ay mbiram yittewoo ab njàngam ngir di ko tasaare ci àdduna bi ñëpp di ko gis macha allah waaye ndaw soosu mbokk jullit yi yamul ca de góor góorlu woon na ci alquran ba xam ca lam ca war a xam waaye ndaw soosu day mbokk yi la yàlla borom bi tabaraka wa taala teg natt bu metti nattoom boobu nag dalu ko moom dong waaye dafa dal ci kaw waa daara kon may ñaan képp ku yàlla mën loo nañu dimbali ndaw soosu ñu am luñ ko faje waaye li ñu gën a ittewoo nag mooy yóbbu ko bitim réew ndaw si la soo xam ne tey Sénégal gi yëpp xam nañ ko moo tax man mënuma génnee sax jëmmam wala vidéo senegal bi ñëpp ko xam te fii may waxee am na ay sëriñu daara yoo xam ne war na ñoo xam kan lay waxam waaye l'essentiel yow mi nga xam ne yaay jëf ngir alquran yow mi nga xam ne yaay jëf te yàlla tax bul yittewoo sax kan la yow defal tabul xam kan la borom bi tabaraka wa taala dana la yëkkati te dana la fay te gëm naa ne ndaw si li yéenam ci alquran ak ñun lan mooy suñu yéene ci ndaw si mooy bés fi di yëkkati alquranul karim ci lii nga xam na moom la ko borom bi tabaraka wa taala may ci xam-xamu jumtuwaay yu xarala kon nag mbokk yi maa ngi ñaan ngeen tasaare vidéo bi numéro téléphone baa ngi ni ci képp koo xam ne bëgg ngaa jóg ngir def ci 77 705 49 49 di nga jot Abdou Aziz Camara kon nag maa ngi ñaan di woote soppay alquraanul karim yi ñi nga xam ne dañoo bëgg alquraanul karim di gën a kawe ndaw sii nga xam ne ma nga tëdd ca lalam ba nga xam ne yéenam yépp mooy jóg ngir fépp fu mu fekk alquraanul karim yëkkati ko ba ñëpp gis ko maa ngi lay ñaan yow mii nga xam ne yaa ngi ciy jàppale yaa ngi jóg ngir di ko jàppale ni yàlla borom bi tabaraka wa taala di yëkkatee alquran di ko jaarale ci ndaw soosu yow mii di ko jàppale yal na la yàlla say mbir اللهم صل على محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر الفوتي ما نقول السلام عليكم